les attentes de la population. ñu bëri dañ doon politique ngir la ma cay am. donc formation gouvernement bi du yombee noonu beneen bi timing bi permettre ko comme li Siré wax amoon na ay dates yu doon xaar le chef de l' suma mhm. son discours démb tey euh, levée de euh, nu mu tudd waaw levée des couleurs donc ñaari fanu chef de l' état bi la woon donc à partir de demain mun nañ xaar gouvernement bi. Mhm. mu génne ko je pense que ba léegi mi ngi ci timing bi. ñu xam profil yi attente yi dana bëri gëm naa dana ay profil ci réew mi comme ci bitim réew beneen bi moom président Ousmane post bi mu occupé le poste du, du premier ministre man dama jàpp ni un président Diomaye au pouvoir mm-hmm. amul poste bu ñu gën a mën a taille sur mesure que le poste du premier ministre pour Ousmane Sonko parce que premier ministre il protège le président de la république d'ailleurs danay faral sax di wax na la benn fusible la boo xam ne lu war a ñëw ci président moo xëy jël tëb mhm. donc Ousmane protège Diomaye mhm. beaucoup de choses les gars du système mhm. les tiraillements les pressions venant de leur formation politique Pastef ak leneen ak leneen ak yëpp c'est day mun a nekk barrière bi koy dékku mhm. d'accord parti bi gisuñ seen bopp ah ni ñu fal parti bi néew na ci mhm. Ousmane a ngi fa yooyu yëpp Ousmane def ciy mun a mhm. protéger le président de la République mais beneen bi il sera le patron de l'administration rigueur bi ñu ko xamee xam nga entre les deux hommes mun nañ am même bëgg-bëgg yi mais style yi ute na yaa ngi nit ñi Ousmane la ñu gën a ragal <laughs> Kabba Ousmane Sonko. Fajara dal na Jomaay kalmam bi. <laughs> non non am bi dalay nax mais gars yi. ci li ngay gis Ousmane lañ gën a craindre que Jomaay. <laughs> ñoo yooyu nag. donc à part <laughs> donc foofu rek da ngay gis ni gars yu bëri dinañ suur beaucoup de choses la woon woon ni na. Uh-huh. est-ce que mm-hmm. donc amul post bu gën a adéquat pour moom que post premier ministre. donte na ci attelage gouvernement amoon na yeneen postes yu mënoon occupé yoo xam ne xëy na du jël trop de place mais du nekk tam trop en mais. Mhm. président Ousmane dafa soxla légitimité wu mën dérouler li muy dérouler mooy wax au nom de l'État muy benn. Mhm. mën di génn di wax o nom du Sénégal muy ñaar. Mhm. mais mën di wax ak les Sénégalais. xam nga tey. Ousmane président PM Ousmane mënoon na def recul PM mënoon na def recul. ñu bari ñu ngi doon njort de. président Diomaye di déroulé. Mhm. mais am na koo xam ne yëf yi du ko saf. moom Ousmane a ko saf. waaw mën na soxla levée woote am koo xam ne du joxe. moom la gëm ne bu ko dénkee dërëmam du na sax. Hmm. yaa ngi comprendre dafa am ñoo xam. xoolal sérieux foofu ñoo xam Ousmane dafa leen rassuré. Mm-hmm, mm-hmm. jàpp nañu lum ne seen xel dal na ca. bu ne levée de ñu def ci seen alal bu nee nañ dellu ca tool ñu topp ko. dem bay da nga soxla outil maam man dama gëm ni président Diomaye outil bi gën a baax ngir. réussir gestion. Mm-hmm. il s'appelle oui. le premier ministre Ousmane Sonko. il mm-hmm. kon mën nañ mën nañu xaar est-ce que mën nañu xaar parce que boo xoolee euh, nguuru président Macky Sall pendant douze ans yoo xam ne mësuñu dégg ministre boo xam ni tëj nañu ko wala nangam et pourtant il y a rapport de yoo xam ne génn nañu wax que ni diw bi ak diw bi euh, def nañu. nangam mun na bañ a am. ci biir xam nga lu tax da doon am fitu lekk bañ lay tëj. <laughs> Ah, lool de moom mooy moo ci gën. <laughs> am fitu lekk bañ lay tëj laa gëm ni nit du ko ci dem. Mm-hmm. parce que ku ci jël parce que déjà attention ak dossier yi fi nekk y aura des cas qui vont servir d'exemple. dossier yi nii. ah oui xam nga xam nga. France ànd Abdou boo gudd tànk. ah oui xam nga xam nga Abdou dafa gudd tànk dégg naa gars yi ñenn ñee ngi bëgg a génn aéroport ñu ne leen dem leen toog kilifa gi nee na bu kenn génnati ñi ci jotagum génn sax yaakaar naa vol spécial président lañ génne. ñi jotagul a génn fi mu. ngi ñenn ñi jot a génn. je pense que avion avion commandement bi la ñu àndaaleeg président. Hmm. mais fi mu toll nii ku dem aéroport doo génn. instant bi dootoo génn. man Lat Diop après gis naa ñu ko. ñu ko état des dañuy def état des lieux c'est vrai. dootoo génn dañuy def état des lieux. waaw ah tey léegi <laughs> dana bëri léegi ah, parce que audit yooyu aussi waay. xam nga xam nga ay France antique yi nii bu ñu jàppoon benn nit mu def benn délit bu ñu ko mm-hmm. tegee sanction rey ko pare dañ koy takkal crime bi mu def wékk ko ci digg dëkk bi ku xam ne diw moo defoon nangam. <laughs> Hmm. yow leer na la ni ñi ñuy njëkk gérer seeni dossier danañ ci def loo xam ni xolal mooy lëmbee réew mi ci la ñëpp di jaar baxu xel kenn dootul aventure ba di ci def. Cheikh Ousmane Ba defoo dara. man kay maa ngi nii dégguñ ma lan. jamono ji c'est une première ah c'est première ci réew mi nit li gën a sant yàlla ni dénkuñ ma ah dénkuñ ma rek maa ngi nii moom tous lañ ma dénku. est-ce que gars yi duñ teel a dem négocier jeeg. non boo négocier. Uh-huh. dinañ jël. delloo affaire yi waaw comme nga delloo ci xaalis bi. waaw te xam nga ah, président ah nee na mën ngeen négocier de. voilà foofu nag laa bëgg a taxaw li président wax noonu. képp ku dénoncé. ki la utiliser comme prétexte di nga am amnistie mais di nga comp dara mais loolu ça veut dire beaucoup de mhm, ci naka. saa yi kees yi dara new fi. keesu état bi. waaw wuy fifteen newu fi. wax boobu loolu nga ciy dégg indirectement. président def na état li xam na ne dara newut trésor parce que bu la président proposé amnistie boobu bàyyi ñoom jotu quatorze mille milliards benn dërëm newul ci kees yi bu ko sénégalais xam moom bu ko sénégalais xamul moom parce que li mu la proposé médiation pénale la hmm. mooy dara newu fi mm-hmm. gars yi nee nañ furaas xaalisu dëkk bi nag dëkk bi dëkk bi ñi yàq nañ dëkk bi ah, nag dara newu fi te man kenn ci proche collaborateur mbokk nañ plateau mu a première urgence yi mu jublu mooy fexe ba ñu mun a fay salaire yi mois bi biñ fa biñ ko falee rek ci la nekk. xam nga loolu urgence ah. nee na moom président Bassirou Diomaye biñ ko falee première chantier yi ñu ko dugg mooy fexe ba ñu mën a fay weer bi. weer bii nii waaw. fexe waxuma la waaye ñii ñoom ñii ñoom doon def xaalisu dëkk bi ñoom man comprendre lañ ko defoon rek séddoo. fexe ba ñu mën a fay weer yi biñ ko falee ba tey ci loolu la concentré wu. dara newu fi. parce que parce que maa ngi ñuy dégg ni moom bi mu bi mu duggee palais ba tey pour mu génn bureau sax dafay jafe parce que mi ngi sëgg ci. no euh, dossier yi. xëy na xëy na xëy na style dana ute comme nit ñëwee kees yi fekkuñ fi dara dara mais la manière ak ni ñuy waxee ku mun décorer di xam dara newu fi. ñoom ko directement mais. ni ñu waxee ci ci ci ci nga koy mën a déggee. no ni mu waxee loolu ngay comprendre fii dara newu fi kees yi dara newu fi. d' léegi système bi mu teg ni jàpp nga dina mën a marché Sénégalais yi bon san ñu ngi koy wax ñu ñëw <laughs> commencé boo boolee euh, man a mën a am dara est ce que parce que nag. xeex corruption boo boolee mën a am dara attention loolu dafa jar a leeral. du romb nit rek na moom moom kër gi da ngay am preuve. preuve boolee na ko koo accusé te teewul lu dëgër boo demee yow la ñuy nga xam nga ki ngay ki xeex. mais xam nga bu nee les prête non. Uh-huh. moom daanaka sax nag du ko tijjul sénégalais yi ëpp rek yeew ku ne visé def ne les prête-noms ñi nga xam ne jël leen leen. Mhm. utiliser seeni tur def ci ay bien tëdd ci ay compte jënd ci ay kër. wala alal ñu bu ngeen dénoncé seeni diw moom utiliser comme prête-nom yow dinañ la amnistie te dana am lu ñu la jox nga rep. mais est euh, amuñu droit. par exemple dana am de loolu. Uh-huh. fii ginnaaw suba est-ce que bi mu ko waxee bi balaa muy pare sax amul ñu dem dénonce parce que y a am na ñu commencé déjà. non parce que xamul tax <laughs> am na ay nit yu ne fii amoon tuuti teraanga. Uh-huh. particulièrement nag ay jigéen déglu baax li ma la wax mhm. ay nit approché leen def leen prête nu investir ci seen business wala ci seen personne multi blanchir seen alal mhm. ñooñu tey ils sa sant exposés hmm. dem neen ba ci biir des fois sax xëy na ragal mais comme que ki nga ko seexuloon nitu pouvoir la da ngay ragal a génn mais buñ la tijjil couloir bi da ngay daw wax sama bopp ma la gënal du bañ naa la la preuve mhm. le régime libéral du président Wade bi mu jeexee amul kenn ci responsable yi ku ci amoon takko bu ñu retrouver quatre cent et quelques millions ci compte am Famba génn àdduna. Oh. ah am na. en tout cas ak ñiy denc doom yi tëdd ci xaalis bi ñiy ci xaalis seen kër yi borom sàkku xaalis yi seen biir kër yi ñooñu tamit war nañ leen li jël ak borom coffre yi ci biir borom ci biir bureau yi ñu investir business yi dafa bëri fi ñu blanchiree xaalis mm-hmm. parking automobile yi di pousser comme ay garab ci dëkk bi immeuble yi littoral bi xoolal ñaata ah, non xoolal ferme non ferme yi nekk ci dëkk moom dafa ëpp <laughs> mais xoolal Sénégal ñaata immeuble ñoo fi poussé ci littoral bi mhm. ay immeuble yoo xam ne dañ lay wax appartement un million de dollars de millions de dollars fii ci dëkk bëri fees del mhm. ak yeneen ak yeneen yeneen secteur yu ñu investir donc bëri na ñoo xam tey il se sant maanaam ñoom ci nen lañ toogoon doon xaar ku leen ko teggi lañ leen woon dafa diis boo leen tijjilee pot bi dañuy ñëw wax d'accord am na am na am na solo euh, Siré Sy euh, bon xam naa ni nga brossalé ci kii bi rek bu dee am nga loo ci yokk mais est-ce que tey gouvernement bi mën nañ xaar parce que ku ci mel ne Aliou Mamadou Dia yaakaar naa ni kàngam la boo xam ne ñu ci bare bare naataal buñ ko naatable wuñu ko mais ñi ñi mu bokkuloon ci opposition bi te nekkoon ay candidat ay moom Aliou Mamadou Dia Boubacar Camara est-ce que tey ñooñu mën nañu leen a xaar euh, ba tey Ousmane Sonko ci ratisse ratisse large bi mu nekk di def nii ñoom ñu mën leen a xaar ci gouvernement bi <laughs> waaw waaw <laughs> xam naa ni am nga loo ci <laughs> loo ci bëgg kii boo xam yàqul déedéet dangaa fay micro yëngal euh, soxna Mamy Samb mhm. dama ko daan Souleymane Faye dafa ne woon ca way wax hmm. <laughs> <laughs> ne ko dem naa ne ko dem naa yóbbaale sama mbëggeel waaye Macky dem na yóbbaale kees gi ne ko dem na yóbbaale kees gi ne ko dem naa Macky daal dem na yóbbu kees gi <laughs> waaw Souleymane Faye nag moom daa demoon yóbbu mbëggeelam rek waaye Macky nag mënoon nañu fee bàyyi kees bi quoi dëgg dëgg euh, en fait. Euh, yàlla absolument en fait euh, dama bëggoon dama fi dégg benn débat.